askanu sem maamu ibram askanu sem mooy lii sem am na téeméeri at door a jur arpaksad fekk na mbënn ma weesu ba mu am ñaari at arpaksad juddu na sem dundaat juróomi téeméeri at juraat ay doom yu góor ak yu jigéen arpaksad am fanweeri at ak juróom jur sela sela juddu na arpaksad dundaat ñeenti téeméeri at ak ñett juraat ay doom yu góor ak yu jigéen sela am fanweeri at jur eber eber juddu na sela dundaat ñeenti téeméeri at ak ñett juraat ay doom yu góor ak yu jigéen eber am fanweeri at ak ñeent jur pelek pelek juddu na eber dundaat ñeenti téeméeri at ak fanweer juraat ay doom yu góor ak yu jigéen pelek am fanweeri at jur rew rew juddu na pelek dundaat ñaar at ak juróom juraat ay doom yu góor ak yu jigéen rew am fanweeri at ak ñaar jur seruk seruk juddu na rew dundaat ñaar téeméeri at ak juróom juraat ay doom yu góor ak yu jigéen seruk am fanweeri at jur naxor naxor juddu na seruk dundaat ñaar téeméeri at juraat ay doom yu góor ak yu jigéen naxor am ak juróom jur tera tera gane na àddina naxor dundaat téeméeri at ak fukk ak juróom ñeent juraat ay doom yu góor ak yu jigéen gannaaw ba tera amee juróom ñaar fukki at am na ibraam ak naxor ak araan